li may li may wax rek mooy est que ñi jiite Sénégal xam nañu dëgg-dëgg liggéey bi nga xam ne def nga ko ci ngoogoom gi parce que li ma biir man mooy yow wane nga ne doo tout simplement ab maire vous êtes vous êtes un leader vous êtes un manager ma vous êtes un leader vous un manager parce que lii nga def ci ay réalisation lii gouvernement bu Sénégal waroon na ci teg bëtëm lii nga xam ne def nga ci ay réalisation ministre bi yor développement rural waroon na ci teg bëtëm parce que yow mii tooguloo di xaar état parce que bir na ñi toog fii ne bokkuloo ci état am na ay maire yoo xam ne tey mënuñoo liggéey dara parce que lu ci ne ñu ngi xaar mu jóge ci état jëm si ci ñoom kon yow mii boo xaaroon état tey ñii du ñu am considération bi ñu am ci yow waaye dama leen bëgg a wax yéen population wu Ngoko yéen jigéenu ko kii li mu leen defal du yéen waa Ngogom rek yéen a ko soxla waaye dafa jot nag département bu Bambey mos sa loxo kon jàppal ne ànd bi ñu ànd ci coalition gëm sa ñun yéene nañu la mairie bu Ngogom parce que na ma ne ñii danañu la woteel nga gagné mairie bi waaye incha allah dama bëgg ñu dolli la ci ñun département bu Bambey man Bougane Gueye li politiciens yi di wut yàlla may na ma ko bu dee tur suñu borom am na lum ma ci compal bu dee teraanga am na as tuut ma ci jox waaye ma gëm ne suñu borom bu la joxee paan te siwo doy la dafa bëgg la ca des nga bokk ko ak doomu aadama yi. man gëw ma ne ñi ci kaw ñoo war di nguuru di noos déedéet ñi ci suuf ñoo war nekk ci seen jàmm bu ñu xiifee lekk bu ñu feebaree faju waaye bu ñu liggéeyee seen ñaq mun leen a jëriñ mooy man lu ma gëm te loolu dong moo ma tax may xeex. moom mii monsieur le maire mënoon naa tànn dem fa yëf yi gën a nooyee mooy ci mburu meeg soow bi fa gën a nooyee waaye moom xam na ne lenn dong moo ko yitte mooy yéen ñii seenug nekkin yéen ñii seenug yokkute yéen ñii seenug ëllëg moo yitteel monsieur le maire te yaakaar naa ne li mu def ci bilan bu leen ne seen ëllëg ak seen nekkin moo ko yitteel war ngeen koo gëm parce que def na ngeen gis. mais yaakaar la ci Sénégal espoir la pour toute la jeunesse du Sénégal mais pour tout le Sénégal nañ ko xam moom mii bu ko yàlla joxee li mu bëgg ci Sénégal. waaye ki nga xam ne dafa yor yëfu boppam moo doon toog ci bureau climatisé bi yoonam nekkul ci Sénégal di gérer ay milliards ah yor plus de 500 employés embauché lu mot juróomi téeméeri nit waaye kooku bu fekkoon ne alal rek lay wut ci Sénégal mais du toog ci bureau. mais xoolal alalam boobu yéene bu mu am ci Sénégal jël ci alalam dugg ci biir Sénégal fu ne mu teg fa tànkam amatul jot. xaalis lu ne mu koy def pour uniquement askan bi ne ci jàmm pour askan bi mën a avancer mais kooku royukaay la kooku dañ ko war a jàppale ngir mu yor réew mi bu yoree réew mi ngeen ci xam dara yéen ñi kon bu fii dama lay sant la gërëm sant naa la gërëm naa la ci li nga xam ne moom nga ñëw fii mais sant naa la ci sa vision ci sa détermination sa engagement pour le Sénégal te incha allah nous allons cheminer ensemble dinañ leen dinañ ciy jàpp xeex bi dinañ ciy jàpp dans tous les domaines ànd ko ak góor yi fi nekk ànd ko ak waa Ngogom mag ñi góor ñi jeunes yi pour que li nga bëgg ci Sénégal mën a réaliser maa ngi lay gërëm jërë ngeen jëf.